salaamaaleykum suñu mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois alors euh, yaakaar naa ne kër gi ñëw ñun nin nañ ko parce que kër gi mooy suñu kër yaay ah maman Dioda euh, nekk nit ku baax tey moom la ñu dalal fas yéene waxtaan ak moom nee naa la jamono ji passé maanaam ay fan ci ginnaaw mi ngi doon def coow maanaam ci bijouterie bi nga xamante ni dem na ñu bari naan dafa sàcc ay or ak ñu demee noonu yaakaar naa ne tey nañ ci gën a waxtaan duñ duñ sori ci wax ci dañ koy jox mu nuyoog mbokk internetu Feeling Dakar TV yi ñi seetaan après ñu dëkk ak moom ci waxtaan bi maman ñu leen di di la maa ngi leen di fay. Mhm. bébé Abdou. Mhm. di leen nuyu di leen ziar di nuyu waa Feeling Dakar. Mhm. li may wax rek euh, dafa doon sit bu bu bu bu bari Feeling. Mhm. xale ya fay nekk di liggéey bari Feeling. Mhm. kilifa ga bari Feeling. macha allah euh, euh, moo tax ñu tuddee ko Feeling Dakar defe naa. ok kon baax na. <laughs> ziar naa leen waa àdduna di kontaan ci yéen bu baax a baax. ginnaaw bi ma santee yàlla. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur ya nag. di leen ñaanal fa ñu jëm yàlla na leen gënal fi ñu jógee ci barke sallallahu alayhi wa mhm. di sant ñëpp di ziar ñëpp. Mhm. di di di di jaajëfal ñëpp daal. Mhm. alors mu ngi noonu maman euh, duñ def lu euh, dugg ci biir waxtaan bi. Euh, léegi rek bi may présenté nee naa la da nga fay def coow li nga xamante ni àdduna bi ñu di yeey di yàbbi ku nekk di ci wax. bi nga duggee ci bijouterie bi gars yi naan da nga sàcc or lan nga ñu mën a déclaré ci loolu parce que def na coow ku nekk ci yeey yàbbi est ce que mën nañoo déclaré ci li nga xamante ne amoon na keroog. merci beaucoup. xam nga loolu bi ma koy tourné. sama doom laa àndal. sa doom yaayu mama Khady mi nekk ci euh, seen petit bi Ngoné Ndour organisé. maa ngi koy nuyu au passage moom Ngoné. moom moom laa àndal di di di di tourné ko. Mhm. moom ak sama beneen doom bu ñuy wax Ndey Asu. Ndey Asu yaayam caaka sama mag la. Mhm. maak moom ak ak ak ak euh, man Ndeye Ndiaye Ndeye Assou ñoo ko turne mhm. toog gis des fois su ma su ma nekkee ci internet beeg yeneen ak yeneen. Mhm. damay gis ñuy dugal ay jeeg yoo xamante ne macha allah. Mhm. dañu mel ni ñu war a mel. liñ naan yàlla jox la euh, tànk nga di ci dox dafa yoo ko dara. mu jox la gémmiñ saxal ci làmmiñ te yoo ko nga di ci wax dafa yoo ko dara. mu jox la loxo nga di ci tàcc te fayoo ko dara. Mhm. mais nu tax mënuñu dem daani seeni doole. Mhm. duñu ko def lu dul dugg ci bërëb bërëbu jaayukaay yi nga xam ne. Mhm. ñooñu dañuy daan seen doole ñu sàcc seeni alal ngir jariñoo ko. ana liggéey. dëgg la loolu rek moo tax ma def ko. mais bi ma juddoog léegi. ajaratu ndey ndee la cuunay sama yaay. ji amaat mbaayey sama baay. maam yëlli cunay sama maam mhm. ak ajaratu ñett mbuub mhm. ba ma juddoog léegi man Xadi Mbaay man jooda mbaay boog ndax jooda la nit ñi gën a xam mhm. kenn mësumaa woo tësante fàttalikuwuma ko kaay yaa fi waxoon kaay yaa jël lii mësul am bi ma juddoo ak léegi artiste laa nag damay xool actualité parce que loolu mooy actualité weeru koor gi tamit koor te beeg yu demee noonu loolu la parce que fu mu nekk nii marché HLM ak Tilène ak marché Tëngéej ak marché Grand Yoff ak marché Parcelles ak marché boo mën a dem ci àdduna mhm. nit ñaa nga fa mhm. te ba àddina yi baax dañ daan gis góor moo daan jël ñu naan góor a ngi sàcc kii mais euh, euh, jigéen ñi dañ koy def mhm. rawatina ñi nga xamante ne ay mag lañu doon ay kilifa nga doon mag yor sa njaboot yor sa borom kër amoo looy def lu dul sàcc nekk sa métier rafetul ëllëg du añ du reer mais dafa jara sedd. loolu rek la moo tax ma def ko mais du leneen. ma dem waxtaan ak Pape Diouf sama frère la. <laughs> Euh. Dioufé frère. Mhm. ndeysaan ñu ñu ñu ñu ñu ñu may ma loolu. Mhm. ma dem tourné ko foofu. Mhm. loolu rek la parce que ñoom lu mel noonu daloon na leen seen papa doon jàmbaar. jàmbaaru faq tëdd di liggéey. mais dafa am ñu ko ñëw jënd ne dañuy jënd or mujj gi topp ko. ba yàlla def mu génn ci àdduna ba biir këram. yàlla xam na ko. ah waaw ci la paa di génnee àdduna. ñoom ñu doon ay gune yu jàmbaare yoo xamante ne yaafu suñu mhm. keroog tëngeej dafa mel ni film lañ doon teg biir tëngeej yàlla xam na ko ñi dëkk tëngeej xam nañ loolu mhm. donc ñoom dund nañ loolu mhm. waaw alors ko waxee nga def ko ci ñu nekk ci weeru koor di jublu li nga ni moom mooy euh, ci korte nga bi nga ko defee euh, képp ku gis euh, li nga xamante ni moom mooy vidéo bi te xamul la danaan ah mère bi ñi la meloon nag yu demee noonu ak retour yi nga xamante jot nga ci mooy négatif ak yu positif doon expliquer tey lan nga ñuy wax ci loolu. bon sama jëkkër li mu ci jot ci ay euh, vidéo kenn xamul mu toll. sa jëkkër. waaw mais moom da leen a bàyyi ci biir parce que xam nag man maay kan. moom mhm. xam na ma. Mhm. samay doom vidéo yiñ ci jot mhm. macha allah. sama mag bu jigéen samay rakk màgget ko ci mel ni Soda mbaay màgget Mbuub Anta Mbaye Mamadou mbaay sama frère. Moussa Ngom sama frère yooyu. ñu ngi Europe. mais ñoom ñëpp bi ñu ko jotee. Mhm. dañoo dañoo tëdd nelaw yàndoor parce que xam nañu ma man man. Mhm. xam nañ man maay kan. Mhm. doon taxaw ma sama bopp nag mais ñoom xam nañ ma ndax ñoo ñoo yaroondoo sama rakk bu góor mm, Badou Boy Badara Mbaye sama grand frère bu nekk Tiwaawan sama taawu papa daf ko woo ko mais Badara man dama woo waa kër gi yëpp famille bi yëpp woo naa leen jotuma leen. mais de de li may gis ci internet bi man internet mosuma fëkk. mais bii moom fëkk na ma. fëkk na waaw. <laughs> Badara Mbaye ne ko grand boo tëddee nelawal te bu ma waar sama téléphone ndax man damay nelaw xadee mag loolu. fayaat coupé téléphone am nelaw xàppi. Mhm. aw ma jot bu xalaatuma ko ci sama àdduna pour sàcc. <laughs> wala ma def daraay ñàkk fayda lu ma nit di gisee di ma ko xeebe mhm. bu boobaa nañu dóor ci kaamil ne du man Jooda Mbaay. ak ni nga metti réew mi nekk référence tey képp nga xamante ni yaa ngi yaa ngi ci milieu bi di di di théâtre mun naa ne am nga ñu bari ñi nga xamante ni ci yow lañu gisee loolu <laughs> mooy lu ma lay expliquer. <laughs> Abdou kenn xamul woon. man naa bàyyi Xadi. su ma kenn xamul woon. Mhm. dinaa Seydina Muhammad dara jaralu ma def lu bon mbaalu ñaaw parce que fi ma juddoo la mhm. man sama yaay doomi buur géwël la mhm. sama papa doomi buur géwël la mhm. dëkk Tiwaawan sama yaay dëkk Tëngéej ji diggante Yoof ak Ndar kon man su ma defee lu ñaaw mbaa lu bon bal dal ci sama kaw mbaa xam nga ne sama nijaay Matar Sène maa ngi koy euh, ñaanal moo njëkk jox Ablaye Wade un million ak oto ak costume ne ko demal politique yi. sama maam Alaaji maam Yelli Cuun moo njëkk doon boucher fii ci Tëngéej. sama nijaay Maodo Cuun mooy borom galon yi. sama nijaay Dut Cuun moo njëkk doon commissaire bu ñëwul fii ci Tëngéej. sama nijaay Badara Lam Cuun diggante euh, diggante. Hmm. Euh, ministère. ak Tëngéej gii. ak Europe amul fu mu demoon doon directeur colonie de vacances. doon directeur école. asuña sama doomu ndey jooju xam na li may wax ak Khady Baara sama yaay ak euh, Ami Diagne ak Khady jaw xam nañ loolu may wax parce que. maak mhm. ñoom la woon ba ñuy gune. Mhm. mais man su ma defee lu ñaaw mbaa bon bal dal ci sama kaw. mënumaa def lu dul yëfi noobul. fenu ma sàcc ma tësante ma demlante ma jëflante ma lu dul lu baax lu mhm. dul lu baax bëgguma barki Seydina Muhammad mhm. te kenn mënul taxaw ne Xadi Mbaay mës naa ko wa tësante wala mës na ma waxal lii wala mës naa jël sama lii mhm. soxlawu ma daraay kenn sama juróomi dërëm moo ma gënal miliyaaru jàmbur. <laughs> alors euh, maman comme ni ko waxee rek euh, aussi nee naa bu loolu amee. Euh, di nga am ñi nga xamante ni bëgg nañ la. am ñi nga xamante ni mooy comme àdduna fi nekk day am ñi la bëgg am am ñi nga xamante ni dañ lay bañ. mais amaana ñu la xamul bu ñu xoolee ci commentaire yi ñu bari ñi nga doon wax ah maire bi dafa bëgg oor rek. nii la mel yu demee noonu. doo ko gisee mi sol ay garaawum ndekee sàcc la ak yu demee noonu. Mm-hmm. noonu ak tamit nit ñi toog di ko waxtaane loolu lan lay def ci yow a sama doom. Mhm. Soda Kebe ñëpp xam nañ ne daf maa bëgg. Mhm. sama doom ji Kebe Ali Ndiouga. Mhm. xale bi nga xam ne tey bu ajaratu asu xuma dellu si waatoon. ak Alaaji Xaadim Kebe du defaraat toogaayam. mu dégg lu nekk ngir man def lu nekk ngir man. Euh, yàlla def ku ko envoyé message rek da koy supprimer waat. Mhm. pour ragal koo wax na ko sa yaay sàcc la. ku ko envoyé message supprimer ko. Mhm. am na ñeneen ñu ñoo xamante ne nag ci groupe yi la. Mhm. dañuy jékki-jékki rek tëmbal vidéo bi. ndeysaan. am ñoo xamante ne nee nañ euh, nee nañ ci ay groupe naa noo kii xam nañ ko. waaye femme bi nga xam ne sàcc sàcc bu garaaw la kii noo yéen xamu leen kii sax <laughs> beneen bi euh. léeg-léeg nga gis ku ku ku seetaan ba ci yàgg nee na du ko yeggali kenn dafa dajeeg man daal dina ma waa kii du sàcc bi ma ne ko sàcc bu mag baa ngi nii. boobu mhm. def naa euh, direct bi. ci digiteri bi ba pare. Mhm. mu ne ma gis nga bi ma ko seetaanee. Mhm. Euh, du ma la duma la nëbbatu. sama doom def na ma kii lan moo ko jaral lii. ak ni mu mel ci réew mi. nee na mu ne ko ah xam nga rek solu yéeg si meeku yeeg yooyu. Hmm. koo xamante ne bu solee xaartum bu yomb bii dem. <laughs> bu solee popeline dem. da bu solee <laughs> eh, nuñ tëdd bilaay walaay yi nga xam ba peese amee ba tey kenn sonn. <laughs> mais lu may doy man sol sol popeline ak xaartum sax moo a gën a sol lu lu cher. barki Seydina Muhammad ci laay gën a xàppee. Mhm. mais lu may doyee or. Mhm. or su ma ko bëggee dama koy jënd. Mhm. mbaa sama jëkkër jëndal ma ko. Mhm. mais lu ma koy doyee. Mhm. du ma ko jënd damay xool li ma bëgg ma jënd ko fay. mbaa sama jëkkër xool li ma yéene dem jëndali ma ko ñoo jox ma ma takk. mais du ma jël alalu jàmbur. kenn mësumaa jiñ sàcc. ndax soxlawuma alalu kenn. te waaye am yéene naa ko. loolu la du leneen. <laughs> macha allah comme ni nga ko waxee ne lu waay am yeneen na ko euh, euh, mooy li ma lay expliquer rek euh, jamono ji dafa nekk jamono koo xamante ni ñi nga xamante ni bëgguñu la à chaque fois mooy li ngay wax ku nekk. non ba Gabon ba Gabon. ba Gabon sama doom bu góor bi am na ay xaritam yu nekk Maroc. Mhm. ak ñu nekk Gabon. Mhm. Euh, ndeysaan am na ku nekk Gabon nee na ko non man dafa am ku ñëw indil ma video bi. Mhm. nono ne ma mais yëg nga ne maire Joda Mbaye te muy joué théâtre mais mair boobu ndeke sàcc la. Eh. nee na mun a ko no maire bi xam naa ko bu baax maire bi sonnul bay sàcc. te bilaay ma bay sàcc. Mhm. maa ngi añ maa ngi reer <laughs> maa ngi ndekki. Euh, euh, lu ma bëgg faj faj ko tubaar fakàll macha allah. Mhm. mais lan moo ma ko fi jaral. nee na mu wax ak waa ji waa ji yàkkamti. Mhm. ba ne ko non garaawul affaire bi dama ko fàtte sama kër euh, kii bi euh, xaw ma dama amul connexion xaw ma. Mhm. mais su may yegg di la ko envoyé. Sénégal nañu bàyyi ni ñu mel. Mhm. gaaw a wax gaaw a jugé nit. te doo xam jikkoy nit ki lan la xamoo nit ki juróo ko jëndoo ko. xamoo fu mu jóge xamoo nu mu def ba nga gis ko nga jugé ko nekk caga la. wala dëmm la. wala sàcc la. wala njaalookat la. mbaa euh, euh, euh, nuñ koy waxatee faramason la. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. bari na fi. mbaa góor jigéen la. nit day am alalam. wërsëg yemul. dama koy faral di wax dangay am ndey mu ëpp la wërsëg. yow mii doom nga ëpp sa yaay wërsëg. laal loo xamante ne sa yaay mësu koo jege. am na ñoo xamante ne tey ay minti milliardaire lañu. pork bakki Mouhamed. ay minti milliardaire lañu seen yaay mësul a téye ñeenti téeméer yu bokk ndey ak baay. Mhm. am na ñoo xam ne dañ daan xëy pour ñu xëy ndékki rek dañuy am problème boobu. Mhm. tey ñu ngi téye seeni i millions seen i mais alal seexluwul doomu aadama léeg-léeg nga gis koo xam ne ay mbubbam rek boo ko xoolee danga koy seexlu mu yor billet bu bees tàq boo xam ne bu ko génnee ci poosam da nga naan kii nan la mën a def ba mën a yor billet bu bees bi ak ni mu dofee wala nga gis koo xamante ne boo ko gisee xeeb ko te mi ngi yor ay milliards am wala mi ngi tëdd ci ay millions am hmm. nañu bàyyi di juger nit <laughs> yàlla li mu yor du jeex hmm. rabbi samaawaati wa maa fil ardi hmm. li mu yor du jeex te pour kan la pour ñun kenn mënul yor oto ba yéem ma kenn mënul tabax kër ba kër ga yéem ma kenn mënul takk or ba or ya yéem ma nii jamaa nii xaalis li ma yor dafa maa doy kon lu may dox bay sàcc maa ko mag. <laughs> macha allah mu nekk li nga xamante ni ah, am na solo aussi ah, nee naa leen à chaque fois mooy mooy lu mu wax rek nit ñi dañuy gis dara di ko jugé mm-hmm. man bu ma ci yemee ci vidéo yi man ah, ma man seetaanu ma ko sax parce que xam naa ne loolu mënul nekk ndax suñu moom moo comme ni mu wax loolu moom moo mag loolu di wax tamit sénégalais yi ñuy bàyyi xel à chaque fois mm-hmm. bu dara amee ngay jugé nit ci li nga xamante ni dara leeru la ci loolu yaakaar naa ne loolu am na solo bu baax a baax mais moment fi ñu duggaatee mooy mm-hmm. gis nañ série yi ci gi maman yow far nga nekk dafa mel ni kenn gisu la lan ma waral loolu. noo nekk ma fenn. Hmm. maa ngi toog sama ruq. abo ah fii ngeen ma fekk nii. Hmm. su ma xëyee fii laay toog. Hmm. comme dañoo ne ci koor. damay julli rek ba ndogu jot ma daal di ndogu. toogaat jàpp sama ñaambur la vie continue. lu ma waay woowul du ma ca dem. ku ma soxla woo ma nag dinaa ñëw joxe li ma mën. ndax defe naa ne ñi ma jot a liggéeyal xam nañ damay joxe lépp. Mm-hmm. aw ma demi mesure ci sama liggéey. Mm-hmm. mais nag ku ma woowul du ma ñëw. ah boo dañ la woowul moom moo tax jéego ci série yi ci koor geek yi daw ak yu demee noonu. non non ku ma woowul du ma ñëw. Mm-hmm. mais boo ma woowee nag. ma d'accord ak yow ci kase damay ñëw liggéeyal la euh, euh, euh, jox la li ma li ma am man. waaw tout d' accord macha allah mu nekk lu am solo. Mhm. Euh, aussi moment fu ñuy duggaate yaa ko wax sànq weeru koor ci lañ nekk. Mhm. Euh, ñu gis ni jamono ji bu tollee fii comme sànq rek ñu ngi naan euh, koor di ay 10 jours ci deseg wala 11 yu demee noonu. Mhm. sukkaru koor yëngal sëy yi. lan message ngay jàlle ci loolu. sukkaru koor day yëngal sëy yi. ak ñi mu yëngal seen sëy. Ah ak ñi mu yëngal seen sëy. waaw yi ak seen wàll. jabaru doom yi ak yaayu jëkkër yi mm-hmm. ak njëkk yi ku ci nekk ak sa wàll mm-hmm. euh, dafa am ñoo xam ne mm-hmm. sukkaru koor intéressé na leen ba pare ñoo xam ne suukaru koor <laughs> da leen a mais am na ñoo xamante ne dunduñu loolu goro yi nañu bàyyi bu koor jotee bu leen seen jabaru doom yi joxul suukaru koor. Mhm. ñu mere leen ci est-ce que am nañ ko. dëgg la. Mhm. ce que seen sa sa doom jox na leen ko. Mhm. loolooy wax ji. da nga ci gis goro boo xamante ne. mais sa doom du ko jox juróomi dërëm. et amul lu mu la jox. lu mu la nar a jox njabootam taxaw mu jox leen ko. mais yow ci sa jëmmi bopp da ngay mer ne nu tax indi lu ma suukaru koor. dëgg te amaana amu ko. te amaana bu ko andee sax nga xeeb ko ne ese na ma andil. bu ko àndee nga xeeb ko. Mm-hmm. baadoo laa koy def. Mm-hmm. ndax nag olof day wax ne wërsëgu jàmbur ku cay wayaasee war koo gërëm. dëgg la xamoo nu mu def ba yor juróomi dërëmam. Mm-hmm. ba ñëw yéene la ko indil la ko. mais gërëm ko ci sant ko ci. dëgg am na goro yoo xamante ne amuñu sax lu ñu joxe. waaye ña nga toog di la toggal di la ceebal di la xëyal di la guddeel di la bëccëgal. mais nee leen jaajëf. ndax jaajëf da yokk ngóora. Mm-hmm. mais goro yu ci bari dañoo doy waar. dëgg te yal nañu yàlla musal ci goro bu doy waar. ak goro buy matt di ëf. beneen bi mooy. boo doonee jeeg nag nekk ci kër. Mm-hmm. boo laajee sa jëkkër mu jox la loo teree lay sa goro ak say njëkki ci koor. Mm-hmm. wala yàlla may la yow mii sa jëkkër même bu ko amul. Mhm. yàlla may la loo jox sa njëkkeeg say say say sa sagoro mhm. mais jox leen ko. loolu du dara. Mhm. ki la jural sa jëkkër. ëmb juróom-ñeenti weer boo ñetti at boo boole naq ak nàmpal bàddali. ba sa jëkkër màgg. ba nga gis ko ba bëgg ko. waaye li la war nag mooy teralal ndeyam. dëgg boo amul. tisi yoo ko jox. Mhm. amoo xaalis boo ko jox dee ko wax wax ju neex. Mhm. waaye yàlla nañu yàlla musal. Mhm. ci goro bu naan goroom. sama jëkkër nopp na ma. sama ceeb neex na. sama ginaar doore na. sama lewal foor na. sama cuuraay xeeñ na neex. Mm-hmm. alors maman da ngay gis euh, ñi nga xamante ni euh, des fois dañuy tey ci kër. Mm-hmm. comme li ma lay wax rek euh, folklore jékki-jékki jël dara wala ay peña wala xaay te ko di ko filmer naan maa ngi di ko jox sama goro amaana ñeneen ñi nga xamante ni ñoom amuñu ko. Mm-hmm. di di gis loolu ban message aussi ngay jàllale ci ñi nga xamante ne dañuy am ama léegi ñu dem yóbbu ko ci sutura mais dañ koy vidéo yu demee noonu amaana am na kenn ki nga xamante ni mu ngi ci ci kër di sëy te moom amul loolu ban message ngay jàllale aussi ci loolu. ñàkk xorom. Mm-hmm. nit looy def te defoo ko ci simplicité. Mm-hmm. wàcc nga ko. dëgg yóbbul nga sa goro suukaru koor. Mm-hmm. yow ak sa goro la. dëgg la du yow ak àdduna bi. mais jox ko ko ci pet. dëgg mooy di dimbali nit boo koy dimbali. ñi daan dimbali nit ñi. dañ daan def bu njëkk. dañuy toog ba guddi jot ba suuf sedd nga fëgg buntu kër nit ki jox ko ko ndànk. te kenn du xam ndax yàq ko jox. ci sutura la bokk. Mhm. te yàlla moo wax loolu. moo ne boo leen di jox nit ki wala ngeen di dimbali nit ki di ko may wala ngeen koy sarax ak lu mu mën a doon. Mhm. mais def leen ko ci sutura lu tax mënuñu koo def naturelul. Mhm. looy def da nga koy def ci sutura. am na ñoo xamante ne ñi ngi joxe lu ëpp la ñuy joxe ñoom ñoo ñu di vidéo. wallaahi te boolewuñ ci wax. te vidéo euh, caméra tàkkul. coow jubul. bal tàkkul leneen amul. kon nañ koy def ci sutura day am solo yaakaar naa ne message boobu am solo bu baax njëkke yu aussi mhm. am na ci njëkk yu doy waar ah saj waaw <laughs> njëkke yoo xam ne mën nañu yàpp mën jën mhm. jabaru càmmiñ alal la rawatina jabaru càmmeñ bu baax téyal wallaahi mhm. jabaru càmmeñ alal la boo amee sa jabaru càmmiñ dee ko neexal dee ko naxtaan del kaf moom di reew moom te bañ koo indil problème. dëgg la am na jë njëkk yu baax. mais am na njëkk yu doy waar bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër. <laughs> waaye am na jabaru càmmeñ yoo xamante ne ndox mu sedd muy baxali nen la ñu. naa fekk nañu fumiste nañu rambaaj nañu mën nañu fen mm-hmm. waaw. Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. <laughs> dañ lay fekk ak sa càmmeñ. waaw ngeen juddoondoo. màggandoo yaroondoo. ñu ñëw dugg ci seen biir kër. doon kaani doon naa fekk mhm. doon rambaaj doon fumiste mhm. ki nga bokkal ndey ak baay mhm. jigéen jóge fële rek xamoo fu mu jóge xamoo nu mu sosoo mu ñëw rek jaxase la ak sa càmmeñ mbaa mu jaxase la ak sa yaay mbaa mu jaxase sa jigéen rafetul dëgg la yàlla nañu yàlla musal ci jeeg bu naafeq ak jeeg buy tas kër baaxul baaxul alors mais leptoo nag faytoo li nga lebal sa goroog say njëkkee hmm. mbaa xam nga ne bu ëllëgee dañ la fay ba mu neex ah pour jeeg ji hmm. ku ciy sëy nanga xool ni ngay doxaleeg sa jëkkër ak sa goro bi jur sa say goro yi jur sa jëkkër hmm. ak say njëkke hmm. leptoo faytoo boo sëyee ni la neex bu ëllëgee yawit ñu fay la ko boo jëlee say njëkke def moroom jël sa say goro def moroom di di leen wanne leen seen càmmeñ wala seen doom nopp na ma te mënu leen ci dara. Mm-hmm. bu ëllëgee di nga màtt sa loxo wiccax bëccëgu nar a kàmm. tabarki Seydina <laughs> Muhammad euh. am na ñu ci bari ñoo xam ne. Mm-hmm. yuuxu dina mës a jub fuñ ko foogewul. Mm-hmm. te yàlla nañu fi dégg bàyyi. allahuma amiin <laughs> alors yaakaar naa ne am ah, moment man à chaque fois comme ni ma la ko waxee damay am mbégte lool euh, euh, di la dal parce que euh, maanaam di ngay jàngale ci biir émission moom la ñëpp di xaar ci yow. Mm-hmm. fi ñu ñëwaatee saa nga ñu wax ci affaire yu seey yu mm-hmm. demee noonu. Mm-hmm. alors fan yi passé ñu gis ñu publier ndéegéey ak nga xamante moom mooy jëkkëram papa booy jinne dañoo tàggoo yu demee noonu. te amaana loolu dara amu ci mooy la dal ci cadre comme ni nga demee ci biir ci bijouterie bi ñu ne ya ngaa sàcc or ak yu demee noonu. yan message ngay jàllale ci nit ñi nga xamante ne dañuy toog pour di yàq nit na ci sëy jaambur. sëyu mhm. jaambur. li ciy war mooy nga maandu ci. Mhm. mbaa xam nga ne ñaari nit bu ñu bëggantee yàlla rekk moo mën ci seen diggante dara du doomu aadama. Mhm. ku yabu booy wax ci diggante ñaar ñu bëggante. maandu ci wax ci loo xam. ñaar ñu nobante. Mhm. booy wax ci seen diggante. Mhm. na doon lu rafet. mënoo ko cee wax. Mhm. noppil. mais am na ci fumiste naaféq rambaaj yoo xamante ne. yàkkamti lu dul diw de am na amoon na jëkkër waaye tas na wala diw de eh, am na jëkkër waaye sëy ba du yàgg. wala moo diw de tas na sëy ba tas na yàgg na. <laughs> te boobu xamoo sax la ca biir sëpp la la ko ba la ko ba ngi ci biir. nañu bàyyi di dugg ci sëyu jàmbur yi yow am nga sa sëy toppatoo sa sëy te bàyyi keneen ak mm, sëyam <laughs> nit day maandu mm-hmm. est-ce que tamit maman nekkul benn genre jalousie maanaam benn genre soxor moom moo waral loolu à chaque fois nit bu toogee di sëy yow amoo looy bëgg loolu xëy di bind wala ngay wax ni diw am na problème fi muy sëy wala wala tas na est-ce que bari na ci ñoo xamante ne pas bind sax binduñu mm-hmm. waaye dañuy toog ci seen kër. Mm-hmm. ba waxee ñu ne moo diw de amoon na euh, am na jëkkër waaye jëkkër ja fase na ko. xoolal loolu. waaye moo sëy ba de moo sëy ba de demul fenn. lu ci sa yoon. Mhm. yow lijjanti sab sëy. waaw. mënoo toppatoo sa sëy toppatoo sëyu jàmbur. Mhm. xam sa gént xam sa gént moroom. iñaan dong moo ko waral ak soxor. Mhm. ak bon. nañu bàyyi soxorante bi. ak iñaanante bi. yaa ngi sëy sa sëy bàyyil keneen mu sëy sëyam yoonam newul sa yoon nekkul ci sëyu keneen. concerné wu la. tout court. <laughs> maman <laughs> yàlla xam nga bëggu ba émission bi. di jeex <laughs> euh, di jeex te te te xam nga ñu ngi guddee ak. yooyu noonu euh, euh, am nañ mbégte loolu di la dalal la parce que da nga nekk suñu maman boo xamante ne à chaque fois dañuy ubbil porte yi heure nekk dañ la danañu bàyyi ba jour wala mu de temps ñu war lay def émission. Mhm. ngeen ñëw doon yaakaar naa loolu sa mbaax moom moo waral ñu koy defal. di la bàyyi nga tàggatoo mbokk internet Feeling Dakar TV yi doon seetaan. Mhm. ak ñi nga xamante ni sopp nañ la à chaque fois di la topp. waaw may topp kalaasun Soda Kébé geek Ndey Njaay ak mu xayri Dame Dieng mhm. kalaasu Nene Titi geek mhm. xale yi daal xale yi xale yi mhm. ndeysaan ak képp ku ma bëgg nag maa ngi leen di bëggee di kontaan ci ñoom di nuyu ci mel nii Mami euh, di nuyu ku ci mel nii euh, Ndeysaan Lat Sukaabe di nuyu sama sang bi di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan. wér ak ndax moo ma yaatal nag bàyyi ma ba ma am xel mu dal. Mm-hmm. di nuyu képp koo xamante ne rek. Mm-hmm. yaa ngi seetaan Feeling Dakar di wax ne yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wérag wér ak wérle mucc ak mucc le yàlla lafal ñu cat làq ñu fa yàq yeggul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam waaw mhm. la mhm. mais daal di xam di leen xamal ne leen mhm. maam ak sàcc de ah. <laughs> na na nañu xam ne lu ñaaw lu ñu mës a gis ci man rek <laughs> du doon man nañu xalaat ne xëj na liggéey bi moo yegg foofu mhm. mais maa mag loolu <laughs> alors comme du ko waxee suñu ma nee na moom moo mag loolu mm. aussi comme ni ngeen ko waxee à chaque fois ah, dañu am mbégte euh, di ko dalal parce que mooy li ma wax boo boo mais Sala sama jëkkër la mm. moom maa ngi koy bégee mm-hmm. di kontaan ci moom mm-hmm. sama jëkkër jooju nga xamante ne mm-hmm. daf maa bëgg ba yemalewu maag dara chéri Aïcha bàyyi Mouhamed ak euh, Mm, ak kura. Mm. maa ngi koy bëggee di kontaan ci moom bu baax a baax sama rakku jëkkër la. Mm-hmm. mais sama xarit la. <laughs> mi ngi noonu comme ni ngeen ko waxee rek man à chaque fois damay am mbégte bu baax a baax ah, di bokk moom ah, plateau parce que boo toogee moom di waxtaan day am ay messages yu bari yi nga xamante ni ah, da koy eh, da koy jàllale nit ñi di ci jariñu mu nekk nit ku baax à chaque fois comme ni ma leen wax dañuy toog ba jour bi ñu woo ko rek dañoo bëgg émission danaan ni leen ndax yéen samay doom ngeen di ko ñaanal lépp li nga xamante ni bëgg na ko suñu borom defal ko ko lépp rek li nga xamante ni bëgg na ko suñu borom parce que li may wax ni dama ko dama ko cibee sama xol parce que ni mu ñuy yombalee bi nga ko bëggee invité yaakaar naa loolu yombul jamono ji ci artistes yi alors euh, di di di wax ni Ali moo nekkoon ci caméra bi Abdou moo nekkoon mais mais Abdou Abdou gars yi nañuy simple nañuy simple surtout waaw surtout xadibaara maa ngi koy nuyu ak Fama ñing gis nga gars yi hmm. nañuy simple hmm. fii dara jaru fi dara maanaa gi ñuy jaay. Mhm. dikk ko xëccu ah. ay artiste laa. Ah, ay niilaa mel. ay nii laa toll. te dara ma ci kanam ci xaama jox la sa <laughs> lan moo ko fi jar. <laughs> waaw <laughs> man waxuma sax ci cadre artiste ku mu mën a doon. Mhm. tey man su ma feebaroon. Mm-hmm. ba nekk ci diggante dund ak dee. Mm-hmm. mais dama lay soxla Abdou nga jël sa oto gaar ko ñëw yëpp ma yóbbu ma hôpital. wallaahi mais pourquoi pas bu ma du woowee ma war a mën a jël sama téléphone wax ak moom naturellement. wallaahi lu tax mm. su ma Abdou soxla su ma jàppee ne ko dama jàpp su ma jàppul. mais bañ a taaw mm. fi kenn du fi kenn du fi dara. <laughs> nañuy simplal affaire yi oyofal ko. Mm-hmm. mais di jaay ne nii laa mel nii laa toll. wallaahi ana ana lay sax la simplicité vaut de l'or. dox wallaahi du weer ko waxee nag ah di leen jox dig daje ak keneen incha allah di jaajëfal Aliou moo nekkoon ci caméra bi Abdou moo nekkoon ci présentation bi jaayeen